Bienvenue sur Salam Vision. ci yàlla dolli ay maqaama yàllaaw bismil ilaahi ci barkeb sayxi fàddilu ay maqaam yàllaw bisimil ilaay ci barkeb say ci faddilu mi bor yàlla dool dinoo ay maqaam yàllaw auzubillahi min asheytaani irajim bisimillahi rahmaanirahim allahuma salli ala seydina muhammad nabilu mi wala alihi wa sahbihi wa xadimihi wa sallama tasliman mbokk internet yi nga xamante ne yéen taamoo seetaan télé bu mag bi ci seen émission bi nga xamante ni lépp day dëpp ci jotaayu xam-xam di émission bi nga xamante ne mooy faj sa jàngoro mbégte la ñu am tey dellu si waat ci beneen numéro waaye seet si kenn koo xam ne askanu Sénégal war nga këpp xam na ko na bitim réew duñ ko présenté ndax buñ nee Serigne Cheikh Ibrahima Ndiaye alxuraan turam day daal di wax lu bari waaye ku dégg tur bi am na loo jot a xam ci moom wala am na loo jot a dégg ci moom te defe naa ni lool la tey jii euh, saa su ne ci jotaay yi nga xam ne yéen a ngi koy gis mu koy jagleel askan wi yéen a ngi ciy gis loo xamante ne lu dal xel la te mucc ayib li tax ñu taamu ko saa su ne loolu moo ko waral jamono yi nag ñu gëjoon ko gis lool ku ne di ma woo di ma laaj ana Cheikh Ibrahima Ndiaye ana seen Cheikh a Ndiaye waaye nag fexe naa ba jàkkaar jàkkaarloo waat ak moom alhamdulilah ñu ci santat yàlla bu baax a baax. Cheikh bi gannaaw biñ la nuyoo ziar la waaye ñu ngi lay dalalaat ci biir bi macha allah rabbi waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakatuhu hmm. wa inniya u'iisuha bika wa suriyataha min asseytaani rajim rabbi auzu bika min amasaati sayatin wa auzu bika rabbi an yaqdurun bismillahi rahmaani rahim la qawla wala quwata illa billahi al aliyyil azim Baay ñi ngi lay fay nuyoo di leen ziar di hmm. nuyu mboolem téléspectateurs yi nga xam ni hmm. ñi ngi ñuy suivre fii ci réew mi ak bitim réew. Mhm. di leen wax ni leen aleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatu. jërëjëf Serigne Cheikh Ibrahima Ndiaye alxuraan ci nuyoo bu am boobu macha allah waaye ziar bi tam yal na yàlla sama borom boole ñu yool bi yëpp ci darajay Seydina Muhammad alayhi salaatu wa salaam. sëñ Cheikh askan wi saa su ne ñu ngi may maa ngi jokkoo ak ñu bari ñu may laaj ana sëñ Cheikh Ibrahima Ndiaye dañ ko gëjoon gëj a dégg. Mhm. man leen sëñ bi dafa tukki. waaye gannaaw dem nga ba ñëw ñu bëggoon laaj tey jii sëriñ Cheikh Ibrahima Ndiaye lan moo doon sababu tukki ba ak réew ma nga demoon dëgg déggi sabab bi lu mu doonoon. waaw tukki bi moom sabab gi li ko waraloon mooy am ñaan yoo xam ni dañu ko doon defi ci bërëb yoo xam ni ñépp nangu nañ ni bërëb lay suñu boroom nangoo ay ñaan. Mhm. rawatina. ay yonent yoo xam ni yónni na leen ci jaam ñi hmm. tolloon nañ ay jamono yoo xam ni seen ñaan yi gën a rëy hmm. ci bërëb yañ ko ñaane woon falaa demoon doon ñaanal jaam yàlla yi hmm. gannaaw ba nga xamee ni àdduna sépp jaxasoo na waaye réew mii nga xam ni itam fi la bokk jaxasoo na sababoon nag ma jóg dem topp sunna yonent ya nga xam ni daan ñaan yàlla ci bu ñu nekkee ci ay xat-xat mm. rawatina bu seeni réew nekkee ci ay xat-xat mm. loolu moom gënoon a sabab ma jóg jëm fa nga xam ni am naa fa yaakaar muy turki mm-hmm. ca ulfa ca istanbul mm-hmm. doon fa amal ay ziyaara ci ay xëbru yonent waaye doon fa ñaan yàlla itam nag mm-hmm. ngir sowe réew mi ci yi ñu nekkee macha allah mu doon lu am solo sëñ Cheikh Ibrahima Ndiaye wax nga ko wax dëgg yàlla euh, wax dëgg yàlla soxlas doomu aadama tax ba nga génn saw réew dem ci beneen réew ngir ñaanal doomu aadama boobu ay soxlaam jàppandi defe naa loolee du ma ni mësuta am de waaye xanaa bëri waanewul ñu koy dégg ci suñuy nopp man boog dégg guma ko waaye bokk na ci lan moo tax sëñ bi nga taamu turki euh, turki day bërëb boo xam ni looy wër ci àdduna bi di ko ñaan soo demee ci ñaari bërëb yi ñaan ko fa yàlla wala ñetti bërëb sax mhm. menn réew mi taamu nañ ci Makka fa mhm. yonent bi tëdd meneen réew mi taamu nañ ci Turki meneen réew mi taamu nañ ci fële muy Égypte mhm. yooyu ay bërëbu ñaanukaay la yoo xam ni nit yàlla yëpp dëppoo nañ ni mosuñoo gis lu fa yàlla gàntoo te suñu boroom dafa waat ci alquran ci saaru wattiini waat ni mi ngi ñaan ci ñaari garab yi ak miir ya nga xam ne mooy miir ya ñu wóolu mooy makkatal mukarrama ñu ni nag kaaba ga la ca jublu mhm. yonent yàlla ibrahima alayhi salaam dafa tolloon ci diggante xat-xat foo xam ne xam naa ci biir dinaa la ko waaye leeral mhm. waaye bërëb ba mu ñaanee yàlla nangul ko bërëb baa nga turki yonent yàlla ayuba dafa tolloon ci ay xat-xat bërëb ba mu ñaanee yàlla nangul ko bërëb baa nga turki mhm. yonent yàlla Ilias dafa tolloon ci ay xat-xat bërëb ba mu ñaanee yàlla nangul ko bërëb baa nga turki ñun ñii itam ci jamono jii réew mi ci ginnaaw dafa tolloon ci ay xat-xat mhm. lu yàgg nag ñi ngi woon ci réew mi di yëngal tur yàlla waaye dañoo dem ba xam ne nag am na fu gën a gaaw moo taxoon ñu jug àgg fa te ba ñu fa demee lépp dal na lool rabbil alamin rek mooy sababu tukki gi waaye ajuwul ci yeneen mm-hmm. tukkib siyaar la tukkib ñaan la mm-hmm. waaye delloowaat ko ci jaamu yàlla yi ndax mm-hmm. nit yàlla yi ñoom la yàlla dénk suuf si loola nag dinañ ko xam bu ci kanamee tuuti te itam nitu yàlla du seetaan bu ay amee yonent yàlla Suleymaan am na boroom turu yàlla wu mag wu ko suñ boroom booleeloon li nguur gi di rëy rëy rëy mosoo koo dégg nag moom. waaye fu ñu musaana drapé moom mooy lijjanti mbir yi. Mhm. yaa ngi dégg. bu baax moom la ñuy wax Asix bun Balqiya. bu demee ba ca kanam ci biir émission bi dinaa la gën a leeral loolu. Mhm. macha allah sëñ Cheikh a Ndiaye alxuraan mu doon lu am solo mu doon itam loo xam ne xam naa ni moom pas-pas moo ko lal waaye itam fi ne wax dëgg yàlla euh, yéeme na dool parce que man dimension bi nga bi nga demee Turquie moom laa bëgg a xam parce que déggaguma sëriñ bu jóg di ñaanal askan wala di ñaanal nit wala dara jóg mu jëlal ko génn am réewam. waaw xam nga kenn ko nekk ni nga toll ci yàlla noonu la yàlla di waaye kenn ku nekk itam ni nga toll ci nit ñi noonu ngay doxee ci seen biir. wér na boo gàttee mënoo sut ñëpp. déedéet. waaye boo njooleet kenn mënulaa sut. Mm-hmm. Mm-hmm. <laughs> dégg nga wax bee. dégg nga wax. dégg naa ko wallaay. kon <laughs> boo gàttee mënoo sut ñëpp. Mm-hmm. waaye boo njooleet ñi gàtt mënuñu laa sut. déedéet. loolu ab wax la bu man a wax xam naa. ñi dégg dégg wax boobu. dégg naa junj bi olof la. waaw moo tax ma ni kenn ku nekk ni nga toll ci yàlla rek. noonu ngay doxee ci jaamam yi. macha allah. te nag kaw suuf si ñuy dox. Mhm. lu fi gën a gënal yàlla nit nit gisagu ko fi. Mhm. lu ne nag wax nañ ko ay kaw suuf si ñuy dox. Mhm. lu fi gën a tedd doomu aadama gisuñu ko fi. ñun nag des fois ñu jékki-jékki rek fatte dayob doomu aadama. gis nga réew mi bu ñu xamoon luy nit bu kenn dee kenn du nelaw. waaw nga lu tax. suñ boroom nee na kenn nit ku rey benn doomu aadama te tey ko mhm. mel na ni rey nga nit ñëpp ma bindoon kenn nit mhm. ku rey ab benn doomu aadama te tey rey ko mel na ni rey nga mboolem lu yàlla bindoon yaa ngi dégg mhm. jóg nag ca ba nga amee tànk kilifa du yeex a jóg déedéet du yeex a wax lu bari daan ne ci réew mi ak ragal da cay aju ak am lu la teewax mhm. waaye yi ñu génn kenn ku ne xam na ni ku yàlla dimbali doo ko seetaan dëgg la ndax fa mu jëm mhm. bu fa àggee du baax ci sàmba du baax ci demba mhm. kon nag bu ko lijjanti jotee du ci xaar sàmba duma ci xaar demba li ma yàlla may nag ci turu yàlla te ma man koo jariñoo jariña ci du ma seetaan mukk bis bi ko ñëpp soxlaa ma toog di seetaan loolu du ko def. dëgg la moo tax tukki gi maa ko sab man waaye nag ci askan wi rek laa ko jëmee bataala. macha allah mu mel ni seex bi loolu dafay dafay confirmer saa su ne li may wax ci suñu jotaay yi li tax askan wi ñëpp topp la di la bàyyi xel di suivre say jotaay mooy delloo gi ngay delloo jaami yàlla ci suñu borom. di leen delloowaat seen tër di leen wàqaloowaat ci suñu borom xam ne lépp itam ci suñu borom la aju fi mu ne nii loolu nga ma confirmer waatal ni te saa su ne da koy bañ fi ne Cheikh bi. waaw mais xam nga. man daal nee naa la ni ngeen ma gisee gisi leen ma nii daal maa ngi nit seen biir yal na yàlla def nag. Uh-huh. li njariñ ci yàlla ñu teel koo gis ba jariñ allahumma min bokk ñëpp incha allah waaye li jariñ njariñ itam ci nit ñi. Uh-huh. ñu bàyyi nit ñi jariñoo ko. macha allah waaw ndax gàllankoor amul njariñ. dëgg la. jërëjëf sëñ Cheikh Ibrahima Ndiaye alxuraan ci leeral bu am solo boobu macha allah bi bokk na ci tey sëñ Cheikh Ibrahima Ndiaye su ma la doon laaj na la bi nga demee ci bërëb booba tey jii muy Turquie wax nga ko léegi am na ay yonent yàlla moo xam ay yonent yàlla yoo xam ne ñi nga tëdd ca bërëb yooyu nga dem nemmiku leen siyaare ji leen def fa say toit def fa say ñaan mais bi nga nee cëpp tey ci ci dëkk ba bu ma loolu laaj fi ne taarixu dëkk ba lan nga ñu mën a wax ci loo xam ne ne bokk na la ci li nga xam ne moo la gën a gën a gën a gën a gën a sori ci yow ci dëkk ba nga xam ne wàcc nga fa. waaw xam nga bi ma jugee fii ci réew mi. Mm-hmm. wàcc ci aéroport Turquie Euh, ba dugg ci biir Turquie ba àgg guddi ga ma fa njëkk toogee jëm ci suñ borom maanaam ci saayir mhm. li ma gisoon ci gént laata maa dem Turquie ba ma bi ma fa njëkk ci guddi dama ko gisaat même ci gént mhm. maanaam di wax be mhm. <laughs> dama gisoon ci gént laata maa dem Turquie bi ma àggee Turquie sama première guddi dama ko gisaat nga dund loolu nga fa dund kon waaw loolu bokk na ci comme da ngaa laaj rek première. Mhm. loolu bokk na ci la ma fa njëkk a remarqué. gént ka kañ nga ko géntoon. waaw gént ka moom géntoon naa ko ñeenti at laataa yoonu turki bi. te man moo ma ko wax waxoo ma <laughs> maa ngi koy nuyu di ko siyaar bu baax di ko ñaanal mu gudd fan loolu ba lay seet. maa ko nekk loon maam Thierno waaye. Mhm. Euh, loola daal na ma gisee woon ci gént gisaat naa ko biir turki. Mhm. loolu bokk na ci la ma gën a remarqué foofu baytaala. macha allah. mu doon lu am solo wax nañ ma ci jaar-jaar yu bari yoo xam ne jaar nga fa jaar nga ci bërëb yu bari <laughs> lépp lépp xam naa ne xajoo ci jotaay bi waaye man sëñ bi bi nga ñibbisee dama gis yu yees mhm. dama gis yoo yoo yeesal mhm. ma bëggoon xam yeesal yi yu mu doon ndax gis naa ci say loxo moom yu soppiku mhm. gis naa yeneen ak yeneen waaye yii ma jàkkaarlool nii askan wi di jàkkaarloog moom dama bëggoon ñu wax ci parce que yii moom yu yees la ñaari baaraam yi may gis ay jaaro ci nekk te jaaro bu ci ne daf mel ni ay turu yàlla lañ ci bind te lii li tax mu fees sama bit bi moo dama ko mës gis moom waaw jaaro bii de moom <clears throat> lim toll ni téeméeri turu yàlla moo ci nekk allahu akbar téeméeri turu yàlla yëpp ñu ngi ci biir jaaro bi jaaro bi li ne ci biir ñëwuma toog ak nit rek wax ko ko loolu moom ñimewuma ko <laughs> ngi dégg bu dee bi itam ni nga koy gisee nii noonu rek la mel ndax ayatu kursi yi moom lañ bind ci biir. bi 99 noo dajee yi lañ ci bind bi ñu bind ci ayatul kursi yi. bi ñu bind ci ayatul kursi yi waaye jaaro bi li ci gën a garaaw mooy boo ko takkee li ci nekk danga koy werd dafa am liggéeyam dafa am saraxam. maanaam nga xam ne ab jaay nit moom jógewul fee rek nga jox ko jaaro bi mu takk ko nii rek dem yoonam déedéet yow moom boo ko takkee boobu bu la leere ni boo ko takkee rek commencé ngaa jaamu yàlla ndax moom li ci biir jaaro bi da nga liggéey day adapté wu ak yow kon dalay jaamuloo yàlla par force ah parce que di nga weer turu yàlla alaa ko yàllin bu ayatu kursi bi boo ko weddee rawxaan yi dañ lay dikkal xuddaam yi dañ lay dikkal doo ko wet doo amee jaaro bi dangay ngay commencé am xam-xam ndax secret jaaro bi duñ la joxu xottu jaaro dañ lay jox jaaro beeg secret bi nga koy doxal sa bopp Hmm. li nga wax bi. kon jaaro bi dafa am ay secret yu mu àndal yoo xam ne moom yu mu àndal ay bunt la nag yoo xam ni bunt bu nekk ak la ma def fi ne ayatu kursi bi boo takkee secret ayatu kursi bii. Mhm. boo feebaree jarul nga dem fenn mën ngaa faju ci secret bi nga yor yow. feebar ni jarul nga dem hôpital. non dafa am lim boo xam ni boo yëgee tawat sa yaram moom ngay wedd tawat ji lañ. ok am lim boo xam ni boo yëgee ni sa wërsëg wàññee ko moom ngay laal mu yokk. mu yokk sa wërsëg. waaw am na boo xamante ni si nii boo boo bëggee nag dox ci wàllu yàlla moom ngay werd mu yéege la. yokku makaam waaw maanaam jaaro bi boo xasee ba am benn bu ayatu kursi bi moom dafay dox ci juróom-ñaari bunt yoo xam ne benn bu nekk njariñe bokkut ak moroomam te benn jaaro ba koy def. waaye nag jaaro bi dafa bokk ci jaaro bi boo ko amee dañ lay joxale liste bi secret yi ne sarax yeeg heure yi ngay werd ak ni nga koy doxale waaye nekkul dañ la jox jaaro nga takk ko. te jaaro bi tam mënoo ko gis fenn ci àdduna bi xanaa ma jox la ko loolu ma jaaxal ni tax ma laaj jaaro yi ndax boobu ba léegi maa ngi wax sama waxtu xool bay mais jaaro yi moo ma a yeggali li ma bëgg a wax il fallait ma laaj ci jaaro yi parce que jaaro yi musuma ko gis te xamee na ma xaw ma ñëpp waaye xamee na ma ku ne mhm. waaye duggaguma ba benn sëriñ génne ma jaaru bu ñu bind nii alxuraan bu mel nii waaw yii moom yaakaar naa feneen foo ko gisaat ci man la wala wala ku la ko joxe ci man la ko jale maanaam képp kott yow dong dama ne comme neex kay benn abal kott ni ko demal tëggi ko wala piraat tëggee ci réew mi ma ko jël duma ko kenn la ilaha illallah gën a dugg ci biir <laughs> man nag de wax dëgg yàlla li gaa ñi naan da nga doon yor rek waaye yeb naa waaye tey ji xam naa ni yeb naa ndax nag seex bi jaaro yi moom fi mu toll nii wax dëgg yàlla man waxuma ñuy ñëw dañ ñuy seetaan de man sama bopp man moom dama dul génn kër gi taw ma jaaru nag sëñ bi nag wax dëgg yàlla gën a xóot yow dinañ waxtaan dinañ déggoo nañ gën a ah, sëñ Cheikh am na luñ ma sàcc dee ma mhm. ne ma bi nga fa ne cëpp am na misaal yu xamante ni ay tegtal yu fa xew mhm. tegtal yooyu topp na la ba nga def say tawaaf ak say ziar ak say yëpp waaye tegtal yi dalaa toppaat ba bi ngay jël duggaat ci aéroport bi Turquie di ñibbisiwaat senegal bala ma cee ñëw turki ga nga xamante ni dugg nga fa ban yonent ak ban yonentu ñoo fa tëdd boo xam ne dem nga siyaare ji leen waaw turki suñu maam ibrahima alayhi salaam sa turandoo waaw ndeysaan bërëb ba ko Namroos doon lakkee ma turki keroog ba mu ba ko Namroos di waajal di ko fexeel gaa yi dañ ni ko yow jërul ngay def dara ndax yàlla sa xarit la mm-hmm. waaye xamoon na ni kàmb gële nam da xambu moom ca biir la jëm. mun mu nangu dogal ba. mu ni tekk rek xam nga Seydina Ibrahima nag. moom yonent yi mooy seen bàyyi. Mhm. yàlla da koo def xaritam da koo boole ci boppam. Mhm. xalilullaahi ka yaa ngi dégg. waaye mhm. Seydina Ibrahima Seydina Ibrahima dafa ni tekk di seetaan na mu rek. mbooleem lu namru taxan ci matt dugal ko ci kàmb ga kàmb ga dinaa la ko wan ndax kàmb ga secret da caa am te secret yooyu it dinaa ko leeral muy door a dugg ci nopp nit ñi ci àdduna ñu koy door a dégg ci man secret ci am mm-hmm. ndax Seydina Ibrahima bi ko namru jëlee ba sànni ko ci biir kàmb gi mm-hmm. benn turu yàlla rek la utili utilisé tur yàlla woowu mu utiliser tax suñ boroom wax sawara yi doon lakk Seydina Ibrahima ni ko seddal ci moom waaye sawara yi mu ci sedd de hmm. dafa sedd mujj sedd ba doonum ndox kon mooy ndox mii ñuy jàkkaarloo nii nii nii waaw ndox moom mu mujj doon jën yi di dund ci biir ndox mi ndox moomee nag laa la wax dafa am sakkara faj bu ci nekk boo xamante ni si ni mbooleem doomu aadama bu nekk ci xat-xatu adduna ak xat-xat ba lu mu mën a doon mhm. ndax xat-xat moom munta àgg ba toll fa Seydina Ibrahima tolloon moom ne ci biiru biiru sawara moom xat-xat ba toll foofu àggu wallaay la si xam ba fi mu ne muy tàkk moom la mu waxoon nag mhm. dama koy bañ a wax ndax piraat bee bari waaye xam naa ko mhm. ba tax suñu boroom ci ci xaal mu yebal Seydina Jibril ak ak ak ak ak ak dara ji Seydina Jibril ñëwee foofa keroog mm-hmm. ba wax ak sawaraw yi sawaraw yi ci ndigalul yàlla li sawaraw yi nee naa la dellu ci sedd ba mujj doon ndox kàmbug sawara woon gu mujj doon kàmbug ndox mm-hmm. ndox moomee indaal naa ko ma ne mbooleem xat-xat bu mm-hmm. doomu aadama am la Seydina Ibrahima jëfandikoo woon buñ ko jëfandikoo boole kook ndox ma ma boo ko sangoo ci bis bi ngay génn ci xat-xat yooyu xat-xat bu mu mën a doon bu mën a doon bi ci topp mooy yonent yàlla Ayyuba dem naa ba ci xabroom siyaar ko ñaanal ko. ndeysaan moom it dafa tawatoon. mooy bi nga teg sa loxo nii. waaw tawat jooju nga xam ni moom la tawatoon dafa mujj bi ko suñ borom di faj moom it ndox la ko booleel. est que est-ce que dégg nga wax bi. kon ndax ndox yàgg ndox yàgg na ak yàlla. dama ne Seydina Ibrahima sawaroo daa mujj doon ndox. ndox suñ borom wax ni lépp lu ma amal ci ndox laa ko amalee. Hmm. dégg wax bi yontu yàlla ayuba tawat tawat joo xam ni mooy ji gën a metti ci àdduna parce que kenn mënu koo faj ba ko suñu borom di faj dañu ko irkut bi rijlika haza mu bardun wa sarb fa mu laaloon tànkam ba ndox ma génn mooy robinet boobu nga séen ma ciy naan dégg nga wax bi ma ne ndox moomay indaale naa ko bu kullu feebar bu nit feebar la Ayuba jëfandikoo woon buñ ko jëfandikoo boole koog ndox moomee te saasa ngay wér. pire ngoog de. ñaara ngoog. Mhm. mu da ci yàlla Ilias. yonent yàlla Ilias moom mbiram sax dañ ko nëbbu. ndax mhm. borom bàttin yu bari nee nañ bu ñuy dugg ci mbiram ndax digganteem ak suñu borom. Mhm. kon naa topp rek sunna bàyyi noonu. ci mbiram. waaye daal dinaa la xamal turki ci. kadoy islaam yi la bokk ci ndami islam yi la bokk ci bërëb yi ñu tànn hmm. ci la bokk tànneef la waaw te tànn ñu ko tey hmm. loolu nit yàlla yi xam nañ ko euh, bu njëkk jafe-jafe yi bu musaana am ci réew mi suñu góor ga yàlla na yàlla dolli leeram te desal ay kàddoom muy mujj di njariñ ci réew mi maam Abdou Aziz ndeysaan da baax Malick da daan séddale góor yàlla yi hmm. yóbbu kenn fees yóbbu kenn turki googu mhm. yóbbu kenn màkka des ci réew mi bu pare nag di leen orienté yaa ngi dégg mhm. da leen daan lijjantiloo mbir yi est-ce nga wax bi mhm. maanaam am réew kenn du ko seetaan kenn du ko bàyyi noonu ku jiitu rek am na ku la jiite wax naa la nee naa la yent yàlla Suleymaan bi ko yàlla dénkee nguuru nguuru adduna gàpp mm-hmm. mu tee ci ay loxoom bis jot na rek mu am seen soxna sum takk mm-hmm. soxna soo see jaamu na xërëm ci biir kër Souleymane ñeent fukki fan ak benn ay xërëm la fa doon jaam waaw bàyyam lañ ko deseenal ab istati rek <laughs> moom saa bu xëyee dem di ko sujjootal Souleymane yaakaar ne bëgg baay bee tax ak topp fexem jigéen ndax jigéen it fexeeloon na suñu maam Aadama ba mm-hmm. wallaay <laughs> dem yëgu fii ci kaw wallaay moo ko demee li nga wax bi mm-hmm. bëgg mel noonu ci lu mu mën a doon waaye li ma ci jubloo leeral mooy mm-hmm. bi Suleymaan bàyyeetul xel nguur gi ku ñuy wax Aasix bun Balqiya mi nga xam ni turu yàlla yor te turu yàlla moom mënu koo yor ba pare di yem ak lenn lu yàlla bind mm-hmm. moo orienté mbir yi moo leen woo ñoom ñëpp ni dama bëgg waxtaan ak yéen delloo si leen di leen waar ku nekk mu wax sa jaar-jaar ci yonent ya weesu woon ak li nga defal yàlla ci kaw suuf ba Suleymaan ni kon sag ndaw nag kenn mënula woon waaye sag mag la yàlla xam doy na da tëj wax ji ko Suleymaan woolu ci guddi gi nag ni ko sa xubbab tey bi damaa jaaxal ndax man li nga wax ci man ci mbaax ci sama mag nga ko wax sama ndaw nga ko wax waa sama mag lu ma nekkee mu ne ko ndax mboolem yonent yi mos a jaar fii benn yonent rek moo fi mos a jaar ci biir këram ñu fay jaamu xaram te yëgu ko muy yow. waaw yaa ngi dégg. Mm-hmm. loolu li ma la ci bëgg indil mooy bu njiiti saayir yi sàgganee na leen njiiti baatin yi orienté. te mooy dëgg te ñoo war a orienté. yaa ngi dégg. Mm-hmm. ndax ki yor baatin alam yaxalam bi ànd na laa yara mm-hmm. li suñ boroom di gis lépp da koy may. mu cay gis lenn lenn. léegi nag boo gisee lu ñëwagul toog di xaar ba mu ñëw. Hmm. du la fi bàyyi yàgg ñëpp lay boole. wallaahi la wax nga dëgg. kon yaa ngi waaj xam tukki bi li ko war a la. <laughs> kii fi bu ma ko xamagut kii xam naa fi nag la ca xam na xam jottu naa ko boog <laughs> parce que mu doon lu am solo sëñ Cheikh Ibrahima Ndiaye. Mhm. mu doon lu solo wax dëgg yàlla. yal yàlla fay la yiw parce que li ngay wax ni fi ne euh, mooy li ma wax chaque fois wax naa ko sànq dama koy waxaat du ma taay ci di ko wax ndax jotaay bu ne ma wax ko maanaam fonk doomu aadama ni ko suñu borom fonkee. warmaal doomu aadama delloowaat ko cër bi ko suñu boroom jox bokk na ci sa yitte majeur waaye nag du ma ni guleen ndax tur wi Ibrahima. Mhm. waaye wax nañ ma ne ma bi nga yeggee ca dëkk ba. que mhm. la jële ci aéroport ba am na nu mu tudd. Mhm. gidd ba leen doon gidde am na nu mu tudd. yonent ba nga doon siyaare ji tamit am na nu mu tudd te yéen mooy yëpp da ngeen a bokk seen tur yi méngoo. <laughs> loolu nag euh, xel mu dal lay doon. ndax boo ñëwee ci ci ab dëkk. ki lay jël si tudd Ibrahima. Mhm. kii dawal oto bi tudd Ibrahima. Mhm. yow ki la tax a jug tudd Ibrahima yow mi mu tax jug nga tudd Ibrahima. waaw <laughs> tegtal la. <laughs> macha ñibbi mhm. say bagage ba teg. dañ la mujjee jox di alquran. ki lay jël si tudd Ibrahima. ki yóbbu tudd Ibrahima yow miy ñibbi tudd Ibrahima. ci ki jóge ci Ibrahima <laughs> dal na mu kaay. ñu jox la alquran dak sa dakkantal Cheikh Ibrahima Ndiaye alquran. waaw xam nga sax alquran moom dégg naa ci benn journaliste hmm. mu wax ni alquran bu ñu ko xamoon dañ cib coono ndeysaan dañ cib coono waaw man ma teg ca ni hmm. jërul ñuy xam lépp faatixatul kitaab kese buñ ko xamoon gëm ko dañ cib coono faatixatul kitaab ma wàññi laat leen ko hmm. li faatixa ëpp na basmala muy bismillahi rahmaani rahim suñu ko xamoon gëm ko dañ cib coono. ndax ak ci naka. ndax. Hmm. réew mi ñuy wax. Hmm. ki fi gën a tar ay nattu mooy Ahmadou Bamba Rasul. waaye moo fi ëpp daraja. Hmm. yaa ngi dégg. maamam ji muy liggéey la natt bi suñ boroom war a natt suñ tubaa li muy rii rii rii rii rii dana rus na ko koo teg muy dox ci kaw suuf si da liggéey la ba lépp wuy si ko hmm. xam nga bismillaahi rahmaani rahiim dama lay wax leen du lu jóge ci yonent ci la jóge directement direct waaw boo ko waxee kànfoor yi dafa bari ñuy diŋat waaye na xam ni ba Suleymaan di utiliser bisimilahi rahmaan rahim. booba alxuraan wàccagul. Hmm. moo tax ma doon ndeyu saar yëpp. Fatiha mooy ndeyu saar waaye bisimilahi rahmaan rahim mooy sirru sirri mooy sirru sëhri ilal naasi. seetetetet. dégg nga wax bee. Hmm. kon ñun liñ yor lañu xamul xàmmeetuñ ko. Mm-hmm. te du fi jóg nag mukk laa yombi dina abat muy doolay alquran yaa ngi dégg mm-hmm. dégg kàddu alquran rek suñ borom jéggal na ci nit ba tabal ko àjjana dégg kàddu gi képp waxuma la nga jàng ko waxuma na nga tiim ko waxuma la leeri alquran nekk ci yow ci sa dënn <laughs> waaye nag alquran dafa am ñaari melo loolu mm-hmm. dinaa ko leeral alquran ji nit di jariñoo du alquran xel alxuraan yi xol la doomu aadama la jëriñoo boo jàngee alxuraan mu yem sa xel mii mën ngaa doon kàccoor hmm. waaye boo jàngee alxuraan mu jaar ci sa xel mi sa xol bi doo sensé yaa ngi dégg hmm. yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bi Seydina Jibril di ñëw di ko opéré dindul xel mi xol bi la dindi hmm. yaa ngi dégg. Mhm. tudd yàlla boo ko dee def li li li leeru yàlla gi di raxas ci sa xel mi ci sa sa jëmm ji. Mhm. du sa xol bi sa xel mi ne. moo tax mu ne alaa bi zikrillahi tatma'innul qulub. di nga wax bee. Mhm. xam nga man bëggumaa wax ni ma bëgg a waxee bëggu ma nee waxee. <laughs> <laughs> loolu leer na ñi lay déglu ñëpp xam nañ li koy wax nag. dégg nga wax loolu dégg nga <laughs> naa la bu baax. ni ma bëgg a waxee bëgg ma ne waxee. ndax daa am fu ma bokk moo tax du ma mën a génn. Mm-hmm. waaye nag bu mbiri drapé dinaa junju. Mm-hmm. Euh, maa ngi sant yàlla bu baax. alhamdulilah waaye di ñaan yàlla. Mm-hmm. Ah, ñun. ñu jéem a stable ci suñu biir. te wàññi naxante beeg wor yi. caaxaan yi. Mm-hmm. yi nga am réew. Mm. dëgg moo koy doxal. dëgg nag jombul kenn donte da nga koo jombale sa bopp sax dëgg jombu la. jomb la leer ngay wax. Hmm? Mm-hmm. ndax suñu borom ni tëggee doomu aadama. Mm-hmm. dafa am ci biir jëmm ji loo xam ne loolu dëgg la du changé mukk. te dinaa la wax lenn ci nit. nit nu mën a mel ak yow mi koy atte foo ko mën a atte man sëñ Ndiaye maa la ko wax nanga boole ci biir atte gi ni kii ni mel yàllaa ko bind moom yàlla ci boppam mhm. kenn bind ko mel noonu de bind gi ko yàlla bind nag boo ko fàttee mooy tax sa atte des fois muy manqué wala muy mat mhm. waaye ki am mhm. soo ko téyee di ko xool war koo atte xam ni yàlla moo ko bind te jaamub yàlla ngay àtte. Mhm. kem ki ñàkk bu leen di àtte dinañ yemale. dinañ leen yemale tëggal <laughs> laa hmm? lu leer ngay wax Cheikh Ibrahima. waaye doomu président lay àtteeg. Mhm. doomu député ba lay àtteeg. ak doomu Badoo doomu ndongo daara ba lay àtteeg. <laughs> doomu yalwaankat bi lay àtteeg. Mhm. fii mi ci sa bopp bi. dañ laa war a génn ci ñi àtte. kii àtte mooy kan. ki nga xam ni kuñ ko mën a indil la mi def ci moom mooy jaamu yàlla bi lay àtte. Hmm? lu leer. nit nag boo koy àtte mhm. te yéen ñaar ngeen bokk ku leen moom mhm. bokk nu mu leen moomee mhm. bokk fu mu leen jële bokk fa mu leen jëme ngeen fay daje looy wax ci moom na nekk loo xam wallaahi mooy dëgg kiraamun kaatibiina yàlla nee na sa làmmiñ wi loo ci wax di ko waxaat ci sama kanam ak kooku mën a waxal ak wér tay yoo dara du ci rendu moom gis naa itam ci jigéen ñi temps yi loo xam ni xam xam naa dama leen koy leeral mu leer ci seen nopp yi gis nga ni jigéen ñi am ak ak position bii ñu amee bu yeboo ñu génn ci bu yeboo ñu génn ci basat wi ci hmm? mooy mooy kenn ku nekk fas yéene moom doon sa kilifa ak bopp jigéen dañ koy yilif walla ku gis nga góor bu solee aw dàllam ñëw ci jigéen di ko bëgg si wax ko ni ko bëggee te yàlla tax mu bañ ko yomal xiyam balaa buuse mètre moom ndaw si dina wax yàlla lu taxoon bañ waaj santuma laa nag ñu takkoon sëy bi ci faratas yàlla ak sunnas muhammad ak ay seede nga fecc ko ci maali foro lu dul dara hmm. yooyu booy boo ñu moytu ko de te dafa bëri ci réew mi sëñ bi waaw yooyu nag nga xam ni ay drapas la mooy indi mbas hmm. yii dinaa la ko waxal hmm. réew moo fekk ñuy dundee alalu jirim jirim seeni nattu du dañ ci ñoom mukk réew muy dundee alalu jirim waaw yaa dégg mm-hmm. jamono yëla ca ginnaaw toog nañ fii eh, réew ma la ca suñ ginnaaw mm-hmm. gars di rey julli de ñëpp di seetaan lu ma la waxoon mm-hmm. waaw deeg yi ñuy xool balaa yàgg ñëpp di dee kenn ci man dara <laughs> li nekkee ci réew mi sëñ bi kenn xamul moom toll. loolu yàlla noonu lay àttee. te te te te yàlla ñu yàlla boole dimbali. allahumma amiin. Euh, nga wax mbokki téléspectateurs yi niñ ma nammee woon nammee woon naa leen noonu. ndeysaan niñ ma bëggee itam bëggee naa leen loolu. Mm-hmm. te seen yitte rek moo taxoon ma concentré wu nekk ci yenn yi. Mm-hmm. yàlla na yàlla def. la ma doon sàkku te jëmee ko ci ñoom ñoom ñëpp ñu jot ci ak fu ñu mën a nekk ci kaw suuf. amiin yaa rabbal aalamiin. Euh, maa ngi leen di bàyyi xel bu baax a baax a baax. Mm-hmm. xam naa tey sax damaa nekk ci ay xat-xat jataay bi yàgg na waaye. Mm-hmm. yeneen i jataay dina gën a bàyyi xel bu baax a baax dina gën a mën a leeral bay taala incha allahu rabbi jërëjëf sëriñ Cheikh Ibrahima Ndiaye alxuraan ci leeral bu am solo boobu waaye ci waxtaan gi waaye itam xam ni jóge jógee jógee démb rek tukki wax dëgg yàlla mayuma la sax foo nooyee daal di yegg si daal di ne la aywa fi mu ne kii la ko waral itam mooy saa su ne damay jot téléphone di jot ay message ci whatsapp beeg ci ci ci site beeg yëpp ñuy laaj ana Cheikh ko ndax tàmmaloon nga nit ñi fi ne daanaka lu mu gàtt gàtt gàtt fukki fan yu ne nga génn may leen benn vidéo soññaat ci ñu waqirluwaat ci seen bopp bàyyiwaat xel seen bopp fonkaat yàlla suñu borom subhanahu wa taala te xam ne lépp itam dunduk doomu aadama lépp mi ngi tënku ci suñu borom ba tax na kon moo tax ma nit bi nga yegsee mayu ma la jàmm fenn ma daal di lay song rek ne la cheikh bi fi ne man mënatuma koo lijjanti nga ne ma nag mu gàtt na xat na waaye nan ko ci xajal ndax yittee jaami yàlla yi rek mooy sa yitte kon macha allah ñu ngi lay sant bu baax baax di la gërëm la ñaanal di ñaan ci darajey yonent yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam waaye di ñaan itam ci darajey yonent yàlla ibrahim sa turandoo mi nga siyaare ji woon suñu borom dolli laa taxaw gën a guddal saw fan dolli wéral say cër yéene ji nga xam ne am nga ko ci askan wi te naa la leen ko itam sama borom defal la ci lu kawe sak njot ci dara ji yu baax yooyu nga xamante ni teewee ji nga leen waaye itam di ñaanal bu baax a baax mbokk internet yi ñuy topp saa su ne ne leen Cheikh Ibra seen Cheikh Ibrahima Ndiaye alxuraan a ngi nii li mu li mu ñu wax itam ci tukki bi maa ngi yéen ñoo ko bokk xëy na dama leen ci xaw a gën a xam tuuti ndax damaa yor samay agent secret ci biir këram ñu wër ko moo tax may xam lu ci bare bare waaye daal mu ngi nii dellu si na ci réew mi indaale na nag sëriñ goo xamante ni moom defe naa ni moom kepp kott dong moo ko yore léegi nag ku bëgg a xam la muy saf mi ngi yéen a ngi maa ngi man témoin rek laay daal di doon waaye maa ngi nuyu bu baax a baax Ibrahima Khalil wax dëgg yàlla borom diaspora sopp na bi wax dëgg yàlla jaspora kargo doon it koo xamante ni wax dëgg yàlla mi ngi yombal sénégalais yi mi ngi yombal mboolem étranger yi seen dem ak seen i dikk ci seen lépp loo xam ñu ngi ciy nekk ndax bu ñu nee diaspora cargo boo déggee cargo xam ni cargo moom mooy kuy yeb lu lu lu rëy. te wax dëgg yàlla mi ngi ko mi ngi ko booleeg yombal gu mucc ay goo xamante ne xam naa ne di ngeen ko gën a bàyyi xel ci lépp loo xamante ne rek bokk na ci transport bagage ak wala yu ni mel ngeen bàyyi ko xel bu baax a baax incha allah rabi di gis ay bagage am moom it lépp loo doon lu doon soxla wala yitte rek bu ngeen ko contacter incha allah rabbi dinañ ci mën a taxaw waaye di santaat bu baax a baax sëñ Cheikh Ibrahima santaat bu baax a baax caméraman yeeg techniciens yi ci liggéey bi nga xam ne ñu ngi koy def waaye itam ñaanalaat askanu Sénégal góor ak jigéen mag kenn ku ci ne fu mu mën a ne ci biir réew mi bitim réew yàlla taxawu ñëpp defal ñëpp jàmm ak salaam ak tawféex dig daje incha allah buur yàlla dolli noo ay maqaama yàllaaw bismi ilaahi ci barkeb sayxi fàddilu mi buur yàlla dolli ay maqaama yàllaaw bismi ilaahi ci barkeb sayxi fàddilu mi buur ay maqaama yàllaaw